Pamatar. oui ñëpp am ñëg-ñëgu xol boo xamante ne les gens ont ont mal. Mhm. te am na métti yoo xamante ne am na fu muy toll Pamatar doo dootuñu xoolati. Mhm. nañ ciy bàyyi xel. te doomu aadama di tàngal xolam tout le temps. Mhm. di ko méttital ci loo xamante ne du aqam du yelleefam ngay salfaañi chaque jour. kooku allah kulli xaal pamataar wallahi azim su dalu si sa kaw dina dal si sa njaboot bu fekkee ne nag nit ñi dañoo fàtte gëm yàlla mhm. ñu xamante ne gëmatuñu yàlla ñoo xam ne leneen la ñuy jaamu ñu bàyyi ñoog suñu gëm yàlla mhm. bàyyi ñoog suñu topp yàlla gëm ko wóolu ko te di seetaan mu fajal ñu man daal Pape gëm naa ne euh, Sénégal nag loolu mooy tax sa xol di naqari ko c'est-à-dire que bu ñu nekkoon ci réew moo xam ne comme euh, veulent le faire croire certains que ne ñun ñëpp a mhm. mais réew mi dafa am des hommes de valeur yoo xam ne dans tous les secteurs de la nation tu trouveras des hommes de valeur ci magistrature bi li leen gars yi di waxal yëpp justice Sénégal bi mhm. am na des des des magistrats de, de grande valeur des gens intègres mhm. maintenant la question que tu te poses question simple mais mooy pourquoi mbir mi di doxee nii mhm. gis nga dama toog keroog may may liir journaux yi quoi ma gis ca France benn entraîneur football Galtier entraîneur PSG du xam nga ko de Euh, bi mu nekkee di entraîner Nice benn euh, ci collaborateur yi ku bind benn mail mhm. envoyé ko le président de de de l' mhm. wax ko ne ko waa ji dafa wax ne suñu équipe bi dafa bari ay noirs ak mhm. ay musulmans gis nga affaire bi mu jógee def benn tole ci média yi. xam nga lan moo ci intéressant mooy benn magistrat bu nekk ci Nice. moo ci toog tijji ci enquête. ne loolu moom daf koy daf koy leeral moom day leeral noonu ba xaw waa ji raciste la wala déet mm-hmm. te bis bu amee preuve que ne waa ji raciste la moom da euh, da yoon day dal ci kaw gis nga Sénégal tant que àgguñu foofu mm-hmm. danañ wax lu ñu neex rek mais suñ justice lu naqaree lijjanti lay doon mm-hmm. il faut ñu àgg foofu d'accord d' accord en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax terminé rek euh, di euh, témoigner suñu solidarité ak suñu soutien à Thioro Thioro Mandela. Mm. Euh, mbir yi dinañ si dinañ si ñëw incha allah lool na seen xel daal. et je crois que kenn du accepté quand même ñuy jël tort di ko teg kenn kuy liggéey fii sous sous daf leen di daf leen di déranger ñuy wut benn benn mbir boo xamante ne dañ ko ko nar a toppee gis nañu aussi am na benn journal boo xamante ne sawar na trop ci mbir yi. Mm-hmm. te ñoom seen i mbir moom duñ ci sawar. c'est journal boobu dafa xëy dafay titre ne diw dañ koo convoqué tey mhm. te diw boobu jotul woon convocation oui tey ci fajar lay doog a jot convocation te convocation naxe mbaay seen naxe mbaay yooyu tamit nañ ko bàyyi pamataan ndax munoo woo borom këram ne dañ ko con dañ koy indil convocation pour après korité mhm. tegtal leen ma fu mu dëkk mhm. ñu tegtal ko fu mu dëkk yépp nga indi convocation bi jox ko ba pare ne ko no solu dañuy ànd ak moom. dañ comme ni ñu def euh, Bassirou Diomaye Faye. mu nekk loo xamante ne fa faw ngeen tegtal ma lan mooy homme choc ak femme choc ak ay. loolu bàyyi bàyyi ba lundi. loolu xam naa ne dinañ ci gën a kii mais Pape Matar gis nga set euh, li ñuy def. Mhm. ba pare nañuy wormaal nañuy wormaal nit rawatina jigéen. Mhm. am na yenn condition yoo xamante ne su ko jigéen nekkee. Mhm. doo ñëw di ko brutaliser ba pare naan ko. kaay yéeg ba cinquième étage. dinañ si ñëw dinañ si ñëw bu a baax bu bu paan. ascenseur paan loolu yëpp nañ ciy wasluwaat ak. Mhm. on de tout cœur avec notre conseil. mais bien sûr mhm. di ko ne quelqu'un bon. Mhm. on sait que c'est une femme très forte. et euh, que moral bi bu mu ko fayir benn yoon. d'accord te fu mu geesoo gis. oui sama sama xol doonul woon naqar yi bu fekkee ne kenn ci suñu ay naataangoo. ba ñu ko jàppee woon. ci benn état bi. mu mhm. mbëkk ay nit gaañ ay nit. Mhm. journal boobu da ko defoon à la une. oui su fekkoon loolu amoon na. tey bu ñu defee coro à la une bindal ko li ñu ko bindal sama xol du naqari. Mhm. mais li naqari sama xol mooy loolu am na fi. te loolu tabis fii la mandi euh, euh, te loolu nit loolu euh, bi mu amee te ko une. loolu bi mu amee. léegi rek laa koy waxtaan ak le rédacteur en chef Pierre-Edouard Faye. oui à l'époque Walf a été très gentleman. cette affaire là mënoon nañ ci nekk di wax di wax di bind. on a préféré. voilà même ici à la rajo j'ai pas voulu que ñu aborder sujet boobu. voilà mais ngi noonu. Mhm. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax.